auzu billahi min alsheytaan irajim wa inni auizuha bika wa zuriyataha min alsheytaan irrajim rabbi auzu bika min hamazati sayatin wa auzu bika rabbi an yaxdurun bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñuy topp ci seen youtube bi di le grand secret en wolof gannaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di leen bàllu xaq di leen baal te ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala mu booleenu jéggal suñuy xaq yi dox suñu digganteek moom ak suñuy moroomi jàmm di fas yéene delsiwaat ak yéen ci njëriñ yi ñu baaxoo ànd ak yéen ci ñaan boo xam ne ngir faj bépp aajo la incha allahu taala muy ñaan gu am solo di ñaan bu màgg lool di ñaan boo xam ne itam yomb na lool danañ leen ko defal bu baax incha allah bala ñoo ànd ak yéen nag ci ñaan bu am solo boobu mbokk yi faw ñu sant ñi nga xam ne ñoo abonné ci seen bi di topp liggéey bi saa su nekk ñu di leen wax ne ñoo ngi leen ci jaajëfal ñoo ngi gis seeni commentaire ci ñaan yu am solo yi ngeen di ñaan yal na ko yàlla nangu te boole ñu ko ñun ñëpp waaye tamit fawu ñu jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñooy partage vidéo yi ngir yeneen mbokki jullit di ci mën a jot di ci mën a jëriñu te loolee ñu def tam muy lu am solo ndax dañuy yaatal lu baax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ma koy waxee dafa waxoon ne addallu ala shay'in kafailihi kon ñi nga xam ne ñoo koy yaatal dañ leen di bindal tiyaabay ku nga xam ne moo jëf jëf ji kon yaatal gi am na solo ndax lu baax la te <clears throat> man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuxyiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani allazi kaanu yamaluun képp koo xam ne jëf na lu baax moo xam muy góor muy jigéen yàlla nee na dinañ la dundal dund gu teey te dinañ la fay ca la gën a rafet ca la doon def kon lii lu baax la yaatal gi tam lu baax la kon fayub yàlla boobee yàlla nañ ci jot ñun ñëpp ëllëg kon ñoo ngi leen ciy gën a encouragé ci partager vidéo yi ñi nga xam ne nag yàlla dafa dugal abonné guñ ci seen bi ñoo ngi leen di ñaan ñu abone mooy tax bépp vidéo bu ñu dugal ñu xam ne dugal nanu vidéo gis notification bi man koo déglu fi saasa incha allahu la su ko defee nag ñu jublu ci li nga xam ni moo ñu tax a jóg képp koo xam ne it yàlla dafa dogal nga am loo bëgg a laaj wala loo bëgg ñu defal la ci ab vidéo du jar ngay woote téléphone ci numéro bi ndax bariwaa na ci ñiy woote di laajte day fekk ñu jàpp lool te duñu leen mën a jël <clears throat> kon la gën mooy ngeen defee ko anam goo xam ne saa bu ñu ñëwee gis ko mën leen caa taxawu ci kàttanu sunu borom ca bu yàlla dogalee loolee ngeen di laaj ñu xam ko te man ko incha allah kon commentaire yaa ngi noonu ku ci bëgg a am loo laaj wala loo bëgg ñu defal la vidéo bind ko ci commentaire yi ñi nga xam ne wér yaram moo leen soxal te la yaakaar naa loolu soxal na ñëpp ndax jàmmi àdduna mooy wér yaram loolu waxi sëñ tuubaala jàmmi àdduna mooy wér yaram euh, wér yaram nag lu am solo la moo tax sëñ Saalix Mbàkke radiyallahu taala anhu daan wax ni docteur bi lay faj ak sëriñ bi la jàngal sa diine te mooy alxuraan yàlla rekk mooy ki am seen fay ndax nit ki su wérul du mën a jaamu yàlla dégg dégg jaamu yàlla waaye su xamul tam du xam ni muy jaamoo yàlla ndax yàlla dina xam leen ba bala ngeen may jaamu kon wér-gu-yaram lu am solo la ñi ma itteel mën nañoo abane ci seen YouTube bi nga xam ne mooy seen wér-gu-yaram seen wér-gu-yaram nag seen la boo xam ne wér yaram képp lañu fay waxtaane ay jàngaro yu bari ci la koy sabab ak la koy saafara ak lenn ci njëriñul gàncax yi ak seeni njëriñ ak tawat yi ñu mën a saafara lien bi def nañ ko ci suufu vidéo bi su ngeen xoolee mooy premier lien boobu ñu def abonnez-vous sur votre chaîne seen wér-gu-yaram ngeen abonné ci incha allah yéen ñëpp bismillah kon ñu jublu ci li nga xam ni moo ñu tax a jóg tey xam tey jégalu ndax yooyu ay leeral la rek yoo xamante ne yaakaar nañ ne dangeen koy ittewoo ñaan baa ngi nii moom nag yawmul jumaa baada salaatul ashri bésu àjjuma lañ koy def ginnaaw julli tàkkusaan loolu nag kon day firndeel ne du ñaan koo xam ne dangay julli ñaar raka ba noppi soog koo def ndax diggante julli tàkkusaan ba timis foofu tere nañu ko ci naafila kon ginnaaw boo julee takkusaan ba noppi dangay jàng ñaan gi waaye du ànd ak benn nawaafil li ngay njëkk a jàng mooy suuratul waaqia suuratul waaqia ku ne xam na ne saar la boo xam ne bu bari ay njëriñ la saar bu màgg saar bu tedd lool boo xam ne boroom xam-xam yaa ngi ci def ay mbir yu am solo wax nañ ne ku koy jàng guddi gu jot bala ngaa tëdd suñ boroom dana la saxalal wërsëg bu yaatu lool moom suuratul waqiya mooy iza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha ba ca bi bis fasabbih bi rabbikal azim bam jeexee moom nag benn yoon nga koy jàng soo jàngi suuratul waqiya benn yoon nga teg ci ñaan gi ngeen di jàkkaarlool ci image bi moom juróom ñaar fukki yoon lañ koy jàng mooy soixante-dix fois kon bismillah mi ngi ni la ilaha illallah bi izzatika wa qudratika laa ilaha illallahu bi xaqika wa xurmatika laa ilaha illallahu farrij bi raxmatika ma baamuwaat ko laa ilaha illallahu bi izzatika wa qudratika laa ilaha illa bi xaqika wa xurmatika laa ilaha illa allahu bi rahmatika moom ngay jàng juróom-ñaar fukki yoon ginnaaw boo jiitalee suuratul waaqia soo noppee nag li nga xam ne mooy aajo ji la itteel nga toog ànd kook yéene bu sell nag ndax mbir mu ne ca mbir mu ne rek cay jiital yéene yéene ju sell mbokk yi lu am solo la mbir mooy tàmbale nañ ko tàmbale yeenu ji sell gis nga julli juróom yi farata yi ba ca jiit mooy yéene aj màkka ba ca jiit mooy yéene koor ba ca jiit mooy yéene mbir yu baax yépp te am ay faraid farata bu ci njëkk mooy nekk yéene kon yéene lu am solo la nañ ko ànd ak yéene ju sell te rafet ci njortu bu baax ne li nga ci bëgg suñu borom danga la ko fajal incha allah kon jàngal suratul waqi'a benn yoon jàng ñaan gi juróom-ñaar fukki yoon toog ànd ak yéene ju sell ñaan sa aaju jumu mën a doon ki nga xamante ne dafay liggéey bëgg yàlla li ko wërsëg ki bëgg am soxna wala soxna si bëgg am boroom kër aaju jumu mën a doon incha allahu taala nga fas ko ci yàlla sun borom subhanahu wa taala dana la ko fajal incha allah ñoo leen ko jox ngir jëm yàlla di leen ñaan nag di wax ne bu fekkee vidéo bii ñu def neex na leen ñi ngi koy xamee ñun ñi koy def ci zem yi ngeen di zem video bi te ñuy am yaakaar ne vidéo bi neex na leen ndax njëriñ képp la kon ñi ngi ñaan yéen ñëpp ngeen bës zem zem vidéo bi ndax mooy tax ñu xam ne li ñuy def yéen ngi koy bàyyi xel kon ku mu neex bësal zem incha allahu taala ku ko aimé yàll na yàlla gën ko barkeel ci yow ku ko emewul itam yàll na ko yàlla barkeel ci yow waaye ku ko eme yàll na ko yàlla gën a barkeel ci yow incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa